ndawal doon na li nga xamante ni nag manqué wul ci bile barab. muy bu xar bu nag wala sax ay ganaar fii ci marché Castor. dañuy jaay 3000 ba 2800 daal mooy dernier prix bi ci gën a ndaw. 4500 4000 mais saa yi moom actuellement am na ñoo xam ne ñu ci 5000. xam nga fête moom mooy loolu li nga jënde force day yokk. su boobaa bu yokkee nag ñu yokkal client yi tuuti rek kenn bañ a luy ñuul ci soow mi moo di yenn ci njëg yi dafa daal di yokk jaaykat yi jàpp ni lii moo ko waral. réew yi ñu gën a jege rek muy Guinée ay Mali réew yi gën jege ay ginaar 2000 nga di ginaar 2000 francs bi gën a rëy 2500. bu ñu jëndee 4000 seeraas fay sa transport ñëw mën na jar plus de 5500 mais dañuy jaay 5000 rek pour satisfaire client yi. client yi dañuy juubee benn affaire dañuy gis xar boo xam ne du añoo. xar bu ndaw bokkut ak saloñaar bokkut ak xar boo xam ne baaxul. seeraayu njëg yi nag tax ñenn ñi daal soppi lu bari ci seen budget. waaye yàpp xar moom dinaa jënd 10 kilos. wala sax ñu daal di dem jënd yeneen ganaar yi ñuy duppee ganaaru olof naam nag njëkk yi cher la daal di def. lu waaye am nag mën nga jëm ndax am na am na 7000 am na 6000 am na 5000 am na 3000. leneen li nga xamante nag soxal na ñëpp moo di ndaxam ndawal dina manqué ci feetu korité bi. léegi dootu manqué ndax euh, léegi borom kër yi ba léegi ay xar yeeg nag yeeg yaa ma gën a xam waaw ginaar moom léegi ba manqué tul te ginaar daal am na instant bi wax dëgg yàlla ginaar am na. yàpp moom actuellement moom manqué parce que nag yi am na encore liñ doon tiit xar tamit seerul seer ba léegi nag jaaykat yi ñoo ngi ci gis seen bopp bu baax naam nag dundin gi cher la daal di def.